augmentation bi ñuy laaj tey dafa nekk lu légitime te nag dinañ ko revendiquer président dinañ dégg chaque jour ci plateau télévision yi dinañ fi ay assemblée générale dinañ def ay marche dinañ def lépp lu ñu war a wax ba travailleurs yi am ay yokkute dañ fi am directeur général bu bees dafa def loo xam ne nii tey bu moytul loolu moo ñuy jóole ngum ba faw bu si delluwul ginnaaw muy juróom six prestataires yoo xam ne muy juróom benn prestataires yoo xam ne nii def leen ay jël leen def leen ay caissier loolu dama ne du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg pour prestataires yi moom dinañ dem inspection du travail dinañ préavis de grève jaral nañu ko bu laaj yu ñu def grève dinañu grève mooy liggéeykatu Dakar dikk yi à l'unanimité ñëpp ñëpp tey dañu bëgg yokk seeni salaire